Il y a ku doon wax du am Sénégal fépp élection am fi amul bruit amul yuuxu amul kenn ku si di nga a ba nga dem di xaar ci donc loolu dafay wane euh, démocratie bu majeure am au Sénégal ay citoyens yu responsable yu gëm seen réew yu gëm seen euh, dëkk fii nag bu fi ñëwee Gorom 2 dama euh, musuma fi ñak élection te inshallah tant que ma ngi soxla élection y ñak élection Gorom 2 parce que je suis natif de ce village. reçu élection locale yi warna différent ak législative parce qu'au moment où nous parlons nous sommes à presque 40 dans les bureaux de vote man bureau de vote bu ne téeméer bu ci wara voter inscrit ñeen fukk yi nañu à partir de midi. donc tay vous xolé centre de vote Gorom 2 bima quatre euh, bureaux de vote nous sommes à presque 40 euh, de votants et le taux national ne peut pas euh, musul ag lu weesu 47 donc à cette heure bu 40 euh, ça prouve nettement que ne vraiment nit ñu ngi génn donc je bi là am parce que l'élection bi mo gaaw Ben bulletin la moo sama gars yi dañu juum quoi sama gars yi dañu juum defoon na ñaari vote la amuñu expérience politique ndax boo dee kay militant kenn il faut nga tànn kenn si ñaar seen ñaari liste yooyu mais nag yooyu yëpp euh, ça prouve nettement que y a une démocratie au Sénégal Euh, démocratie boobu nag dañuy ñaan yàlla yàlla na bu ko dara yàq euh, bu ngoonee yàlla may ndam président euh, Macky Sall mu am majorité bu mag assemblée nationale te incha allah dina am.